Papa ñëwal ñëwal

sakkara yàlla ah góor ci boppam war na am la sa la sa pare gul de déglul fii rëkkal eh waay jëlal li ki dëgg ki dëgg ki dëgg ki dëgg ki dëgg mbacuron ki mbata ah mbaca mbaca gi mbaca mbaca ta gin pax pax gin pax pax gin pax pax gin pax pax gin garaje dëgg di garaje dëgg di garaje tata dëgg di ragin mbaca dëgg di ko ma dëgg dëgg li ay ay waay déggal bi su ñaay ay waay déggal alfiba yow Cheikh Ndaw yow e na jeex na way wi dem na way wi dem. ñu foo xoolal Pape Cheikh nu mu toogee. eh waay xoolal Pape Cheikh nu mu toogee. Paa yaru tabe. man la <laughs> man la. am na bi am na bi eh mais moom mu ñëwaat am na bi. amoon na bi maa bay maa bay maa bay maa bay. <laughs> Eh. allez merci. ah atterrissage ah atterrissage ah bilaay dañuy foo ak yéen dañuy foo ak yéen ñu ñëpp ñu dem ci atterrissage kuy dund waaw boo dee bilaay du la jooy bilaay du la jooy taxawal ci kanam main gauche ginnaaw atterrissage ñëwal main gauche bene lu baax du baax ñëwal boo weesu mbaax bilaay si du ma jàll mbaax mbàkke mbàkke du war maas balaa jaar mu war maas Xaadim ma ko liggéeyloo. waaw liggéeyloo. demal. tey ñu salax. tey <laughs> ñu salax. Baye Fall day salax. ana waay. Joola dafay salax. Baye Fall dafay salax. salax salax. dara set na lépp bu dara bu dara set bu ko jalee mu jal jali boo ko jalul mu jal jali te ko jal mu jal jali voilà dañ ko toogaale oui mais eh, mais mais ah waaw ah, faj naa mer kay bu ñu kenn rey jal bu yàlla jal nañ ko jal rek mu jal jali c'est ça mais yow papa da ngaa mës a garaaw ndekete ah mais papa daf nga garaaw loolu de yéen ma ko may rek subhanallah yéen sénégalais yi yow papa yow <laughs> eh, papa eh, ah. yow papa nekk am sa bandi. ah sa maam de moom moo tuddee Abdou Salam. Mm. te yéen ñi jàng diine xam nga naan salaam. mooy jàmm bandi nga de. salaam mooy jàmm. bilaay yu mel ni bu amee rek dañuy dañuy dañuy soxla. dëgg la. man nekkee xaale ba léegi. lii rek la ñuy dox. dégg nañ lu nekk nag gis nañ ci lu nekk. Mm-hmm. waaye itam rëccuñu ko. ndax bët ki dem bi ma demee France. di fa tëgg 31 décembre. wallaahi na ma Sénégalais yi teeroo.

presque quinze ans ni déglu ma ko mhm. ah, amatuma sax CD bi mhm. Mhm. mais tey su ma gisee sax ngeen ciy jaar di wayaat ci paroles yi dafa am waaw dafa am maanaam nit ñi dañu juddoog moom yàggoon na moom comme ni fi Youssou Ndour mel waaw Youssou mooy ceebu jën ci Ndakaaru waaw mënoo mënoo ko mënoo ko mënoo ko tëb ak loo bañ bañ bañ mbalax am na ñoo xam ne dañu bokk ci patrimoine Sénégal te sant naa yàlla bi ma ci bokkee loolu nag da dafa waral euh, may génn sama album

Burkina Faso wa Blaise daal ñuy recevoir Macky Sall daal ñuy wax saa nu demee dëkk rek moom tam ñu ngi koy gërëm uh-huh. dañuy dem ci ambassadeur ba uh-huh. mu boole ñu président bi mu recevoir ñu loolu lu am importance loolu mooy wane ni mm-hmm. artiste ambassadeur la te yow yàgg nga nekk ambassadeur Sénégal beneen photo dañ lay bàyyi nga xool ko te <coughs> commenté ko waaw kii mm-hmm. dama bokk ak moom Serigne Saliou ma diine ma tubaaba dama doon jëndal sama yaay xar mm-hmm. man saa ma jënd sama xar bopp ak sama soxna mën naa sax jënd mbote mais dama doon wax suñu koñ bëgg naa takkal sama yaay jaay xar boo xam ni. ñëpp da nga koy seetaan. ci laa demee galu Thiel moo doon jaay xar. Mm-hmm. may ñëw di waxaale di waxaale di waxaale. Mm-hmm. jékki-jékki mun ma ne ngeen bëri wërsëg murid si dof yéen <laughs> man ko lu xew mu ne Cheikh Amar jënd na saxaar dem na. xar boobu un million et quelque. man ko kuy kooku. mu ne ma taalibi sëriñ Saliou la ci moom laa xamante ak moom mm-hmm. mu doon koo xam ne ku yiw la ku bëgg Youssou Ndour te man ku bëgg Youssou Ndour ma bëgg la ba pare taalibi sëriñ Touba waxuma la dara li mu def ci jumaay Touba ji rek mhm. murid nekk na nga ko war a ci maamam la ko jëlee waaw mhm. Sëriñ Bamba dafa ne woon maamam mhm. sama sas fii kenn gënu la ci waaye après bi jamono doxee yoonu Sëriñ Bamba ah loxoom a ngi ci biir de ma koy gërëm nag ndax euh, man taalibe laa waaye oto yooyu ñu naan Range su ma koy dawal c'est grâce sa xarit la xool ñu xool ñu xool beneen beneen photo <laughs> waaw kii. xale général sunu ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay. lu mu laal a gën lu mu laalul. muy ku gore ku humble. ku oyof. ku xew la ci Sénégal. du la tànqamlu. déedéet koo xam ni daf ni ma sa yow sa carrière. Mm-hmm. sama xol laa ko teg. kër bamay tegg Sorano mu ñew ni yow dafa man li tax mu bëgg la ñëpp mu jaaxal leen damaa ak yow doona bokk jaar-jaar ndax li ngay def ba nga koy def da la doon ŋàññ man bamay tegg mbalax da ma doon wax ay ciib-ciib lan bobu gaay ay reggae la doon ak ay pacaanga ak ñoo gaaw ci ŋàññ wa ba tay bu nu waxee te kat kat ŋàññ ŋàññ bi yëpp jamono day dox après ñëpp di ñëpp di def li ngay def ñëpp ni waaw innovation la ñuy bañ a fait d'habitude mu laal lu mu laal maa ci xam dara ci di ku wallahi nit ko xam ni li neex nag. Mhm. il est familial. Mhm. man balaa maa defal kenn. sama famille lay gëm. wallaahi wallaahi. ku sincère. Mhm. ku ma bëgg. danaa ma doomu Youssou Ndour ma ne maa tey. yaa tey y' a pas de fumée sans feu. man ku ma bëgg ma bëgg la man je me suis fait toute seule barke Serigne Saliou. kenn jàppalewu la. kenn jàppale ma sama doom a ngi yëg sama papa su ma leen waxoon tey kan la ak lan lay liggéey waaye c'est pas important je suis fier d'avoir un père comme lui mais je me suis battu toute seule ah. dama gëm sama bopp ah, xalaat moom xëy na ko photo nga kër la. toog. gis nga boobu ci ginnaaw. damaa toog. tëdd mhm. c'était en 2010 mhm. euh, ñu ni ma am na koo xam ne daf fi yendu comme que mhm. man damay nelaw damay naaje yow daf fi yendu ma ni mais yendu pour lan wax leen ko mu ñëw mbaa jox ngeen ko añ waa may nañ ko añ mu ñëw man de dama Touba laa jóge man naa defar tableau bi ngir may la ko ndax bëgg bi nga bëgg Sëriñ Saliou te tableau boobu sax ñu wone tax ñu wone ñu wone photo bi sa diggante ak Sëriñ Saliou ah borom ah. Euh, borom borom ah, borom borom ndookaa waaw ah, Sëriñ xam nga li tax man bëggatuma wax ci moom parce fi nekkee nag dama doon sama làmmiñ dara parce que ni ma nga fa defal na ma loo xam ni wala wax na ma loo xam ni mm. tey su ma ko waxoon xajul ci ay télé déedéet bokk naa ci ñi ko mujjee gis man mm. ak président bi fi nekk tey muy Macky Sall mm-hmm. mardi leen ko gis ajjuma mm-hmm. la wàcc li keroog la wax Macky Sall donc danoo danoo toog mm-hmm. sëñ bi wax ko li mu wax moom tam mu wax sëñ bi li mu wax ba sëñ bi waxee mu génn man ko sëñ bi man de daanaa la gis nii rek yaay président assemblée nationale waaye di doon président de la république wallaay jox ma loxo man tamit ma toog plateau RTS lu yàgg avant de. Mhm. Malick Thiandou ma ngi toog. Mhm. ma ne ko ku tudd Macky Sall dina doon président de la république. du mhm. Sénégal. ndax boobu xam naa. góor di ko ñaanal. lu mu mës a ñaan yàlla ndax dafa ànd ak yàlla. macha allah ah, man je suis xaw ma Macky Sall aw ma numéro am audience. waaye loolu moom maa ko seene. mu ngoog ah. <laughs> donc photo bi ci <laughs> ginnaaw nataal boobule ah. taxoon na euh, ñu euh, wan na photo bi beneen photo boo xamante ni dafa sori ci yow xoolal. oh oh. Hmm. ndeysaan sama xarit baa ngi nii ndeysaan kii mooy ajalla dëggeen sàmb mm. Pape Cheikh kii kii dafa def ci man lu nekk euh, may taawam bu góor mu am diine bés bii lay def témoignage mm-hmm. ci man ci ëllëg sa la génn àdduna dara dalu ko RTS ak Ismaïla Lo waaw daa di bees tàq doog a jógee Màkka deful sax weer bi mu jógee Màkka mm-hmm. waaye lii rek dafay ñaax doomu aadama yi rek mm-hmm. euh, ñu gën a jàpp sunu ndey mm-hmm. xam ay référence lan euh, man ay fans mère laa gën a bëgg kër gu ma dugg rek mbaa jàpp benn nit rek daf naa ma sama yaay daf la bëgg am na solo am na solo. ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm. mina mina amiin am sàmba jeex na wala jeexul dag may may beneen ah. yàlla na ko yàlla doylu merci donc yooyu ay euh, mbir la yu ñu concocté woon pour euh, Salam Diallo actualité bi. album la boo xamante ni euh, da nga koy génnee date bi ñu jàpp nag dimanche la. waaye génnewuloo ko n'importe comment. dafa am nu ko noo ko noo ko. waaw dafa am nu mu ko nu mu ko nu mu ko defee ndax. avant loolu sax dama lay félicité ndax bërki dema dama dem Sorano bi ma demee Sorano mm-hmm. euh, ñuy sargal Kouthia mm-hmm. euh, Olof Ndiaye def ni genn golo gudd na gudd na waaye loo ca borom yëg waaw dëgg la Kouthia nii lii dama koy gërëmee Pape Cheikh Diallo dama tiit fi ma toog mm-hmm. dafa baax rek mais loolu yow peut-être mën na la baña a neex waye ñun ñi bokk yow dérèt dafa mm-hmm. am lu mu def ci ñun ndax ñun suñu sac la suñu sañon mm-hmm. suñu suñu dérèt mm-hmm. lu bax rek la ñu dégg ci mom té yow tu fais toute ma fierté duma sax xaar ñu wax ba xam pap Cheikh man may wax ni pap Cheikh sama bokk la man may luy titéro té ba ma siwé siwo mais dama dama contente ci bokk bi ma bokk ak yow barké sëriñ Sall muy sargal bu rafet ker ba nga ko waxee ñëpp a kontaan bu la neexoon nga bañ ko wax pourtant fi nga tok wax fi lañ toogee won plateau ah, waaw la won ñu ni ko Kouthia mooy suñu am dal lañu magnifique ah, ba tax na événement boobu noonu sama doom laay jël jox ko plateau bi mhm. woo artiste Sénégal yëpp daal di présenté nag sama album douze morceaux laa def mhm. lu ci nekk wax la waaye sax wax la waaw boobaa ah. donc on va commencer à 22h de 22 parce que nous ñi dañuy mm-hmm. Mm-hmm. donc 22h là ñu commencé. Mm-hmm. maa ngi ci woo doomu aadama yëpp. sama nawlé artiste yep just for you inshallah ci lay tambalé nag. kañ la. Euh, ce dimanche. dimanche bii nii ah dimanche bi mën 22 leen gis naa leen gis Bouba Ndour Jaga ñom ñep gis na japp ñu ci japp ah. mais xam leen dal seen bés la. jeex na ah. kon dimanche 22h just for you Salam moy def présentation album bi nga xamé ne daf koy génne. Salam la tudd voilà. ak jàmm ak salaam. waaw ah, magnifique waaw boppam la ko tuddee. Ah, waaw waaw. de dégg comme éponyme la. daf nga yëfu ñàkk. boppam la ko tuddee nga yëfu ñàkk. pardon tey comment mu ni Pierre. Pierre dina fa mu ni bon avant Pierre. wallaay.